xale la ak mag bombardier ba woon ak bombardier mi mënuñoo bokk. mu bëgg woon adduna bi yëpp que nii âge compté wul pour man. mu ngi dajee waroon ko de téewante dina xam ne ni góor ëpp na ko doole. ñu dàq bëri si làmb ji. dóoruma si kenn mu daan dama ko jàpp daan ko si bëri. ñu mu doon bëreel du ma rër rek. bokkuñu. bu bëggee na jàpp ñaari loxoom téye ba pare. te dibiteri bi mu doon lekk moo ne xam naa moo tax mu wax loolu. mais bombardier moom moo la gën a xam bu ma jàppee nga mel lamb ji jeex si kàttan suñu borom. dama ne mosul bëri ku mel ni man. bu dawul ñu daje laa la wax def lu lu lu neex lu amateur yi bëgg. gis nga jour ba. dina xam ne lépp dëgg la. man ku dul ama neex ku Lamine bàyyi ma la moom dina tal leneen lu dul booy bu xees wala am na doole wala amul doole bu ñu dalante rek yàlla baax. yow man combat bi sama bakken laa si dina may jixaat yi. moom na taxaw dëgër boppam rek mu bañ a daw wala def lii. barki salaate faate damay dem jixaati lu ma am jël. supérieur na baax rek ah man may emprunté super 98 ba léegi maa ngi lang ngeen woo ci lii nga xam ni ma koy joobee sax ëpp na. agsi. waaw soxna si naa def. ça va bien. na si jàmm. bon ce ah, kii la ah. kii la waaw. waaw ah, toogal nii. ah. toogal toogal nii. demal toog wër ragal demal. kii laa leen doon wax rek bombardier. ok toogal toogal toogal. tegal ci basang bi

ah tant bis bu gaaw. bis bu gaaw waaw bu dee bis bu gaaw moom ticket yi 10 000 la mais comme ñun dañuy suul bukki suul bukki da nga ciy teg 5000 muy 15000. romb nga ay nit ci biti n'est-ce pas. waaw ticket yi jaay nañ valeur 100. bu fekkee am na noo mën a defee rek man mën naa fexe nga teel a dugg. waaw kii waxuma loolu. dama la kaa fàtte wax ndax ñi ñu romb bëri na fee. waaw kii sama xarit la. waaw ah, mais mais suul bukki suul bukki de parce que ñun tamit dañuy soxla suñu bopp quoi. defal lu mu hmm. parce que sëñ bi comme que gis ko du yomb. sëñ bi moom du caaxaan bu gisee rek sa aajo faju na de. Hmm. defal li ma la wax rek gis nga ñi nga romb ci biti 6 heures ma matin ñu ngi fi ba ban heure moo jot 2 heures mënuñu ko teg bët. d'accord nga loolu. jël la na ma def sama te loo si xamul nag day faj ay dof ñu mu faj a bëri. ki mooy rako Bombardier. moom la rako kii bi sax mu may woo moom laa bëgg dem jëriñu fët fët. waaw. seen ménj bi day si yaa ngi jàmm kan ngeen war a bëreel ah, xale bu dëkk caaro rek xale bi nu mu tudd kooku noonu rëg rëg ah da ngeen koy dal hmm. yow santal yàlla sant ki la indi kii Mali lañ ko jëlee dëkk buñ ñu naan Tumbatu hmm? waaw ah kii maamam bu fekkee nit bu mosaan war a dee da ko daan defal bonus. ah. bonus quoi. daay daay daay. kii maamam bi jur yaayam ndali pani lañ koy wax borom fat fat ata nata baya la baya baya la baya baya la baya baya la baya sula keɓe fula kele yalala sabari bamale biɓe fala sabari bamale biɓe falale sabari bamale biɓe fala sabari bamale biɓe fala uh-huh. albi sa sakum fula uh-huh. sakum fula ɓe yawi dagala gorosin uh-huh. jara gorosin jara sike kulaba sike anu gisu lépp nee na mu ngi gis lépp bul daw bul daw. toogal toogal toogal bu ragal toogal. bul daw de. Manu maa ngi gisu lépp. nee na mu ngi gis lépp. Manu gis na mu jóge Mbuur mu ñëw. nee na gis na nga jóge Mbuur ñëw fii. dalal dalal dalal. Manu gis na loolu. dalal. moom mi ngi daje ku it nekk ci géeju. nee na ki ngeen war a bëreel moom ci ci ndox la dëkk maanaam ci tefes. Manu maa ngi gisu loolu. te lépp dina baaxu. moom mm-hmm. bu deful li mu wax mu dooru mu daanu. Ah. nee na bu ngeen defee li mu wax. dina ko dooru mu daanu. lan la wax dina dooru waa ji mu daanu. bu ngeen defee li mu wax waaye saraxu. sarax dalal dalal. andiwul jaane moo tax andiwul. saraxu maanaam sarax. sarax moom war a génne. mu def njëgu 500000. Ah. maanaam nee na da ngeen koy fay téeméeri junni à ngeen def sarax bi à ndam nga bëgg rek ndam jar ne. boobu jar na lu manu nga def doolu nga dem ci armeeru nga fanaan foofu ñetti fanu du lekk du naanu. koo kuy fanaan foofu yow. mburu bi. ah waaw waaw waaw mën naa mburu bi mooy defu loolu. mu ne Bombardier day dem ci armeel li ko gën a jege mu fanaan fa ñetti fan yoo xam du lekk du naan. incha bu bëree am ndam. daa war a bëri bi la fay def. boobu defee loolu li ma wax moom dina dooru mu daanu. ah waaw kon. li ngeen tudd leen loolu. waaw man waxaat. waaw ma waxal la ko. waaw nit léegi li ma la bëgg a laaj mooy mbir mi jaral na la wala jaral na la. wax nee na moom du waxaat nga lijjanti loolu. dégg nga laay xaalis. bi da ko koy jox. sarax sarax yi nag balaa ngaa dem moom dina laaj sarax yi ñëw wax la ko. pare nga pour def loolu wala pare woo. yan mi demal nga laajal sarax yi sarax yi lan la boo ñëwee nga wax ko yow defal sarax yi rek combat sarax moo koy gañe. Bombardier du tapet war na mën a am fi du fanaan ci armée ñetti fan loolu garaaw. man boo koy wax ma tapet waaye seen kii moom moo xaw a doy waar rek. sarax yi daal boo mënoon nga ñëw nii di nga ma fi indil leneen. ah ah sëñ bi nee na. Mm. nag bu si géej lañ koy rey ndax bu muy bëreel si géej la foog ñu def tuur te boo leen jaaxlew yéen ñu nekk si famille yéen ñëpp bi dafa pan. 500 mille nag bi nag bi ak bëy bi sarax yi ñu war a génne lépp si géej bi lañ koy def bokkul ak la war a jox kii kii du waxantu kii faj na dof faj na ku nekk. façon mbër bu nekk. non soxna si bu fekkee da ngay sikki sàkk nga. sikki sàkk ko mais xaalis xaalis laa lay tegal ah, xaalis. mais Bombardier kase mënu ci génnee ah. mais dama nga wax ak moom. ah wala pare nga def loolu. ba pare naa kay. sarax yi mu la laaj yëpp pour ki ngeen di bëral du leen mën a gis. comme ni nit di nekkee ci lëndëm du mën a gis dara. Ah. bu ngeen jàkkaarloog Reug Reug du xam du xam dara Bombardier da koy jàpp nii rek teg nii. mooy nag bi ak bëy bi. mooy nag bi ak bëy bi. a ñëw. da nga def lu gaaw yaa ngi jël suñu temps de. boo ko dugalul fii ba 5 heures rek assuré wuñ combat bi. dama koy dugal ban lim ba ban lim. àndal ak yàlla ma joxoon sànq. demal demal demal nga dugal ko ci numéro sëñ bi. àndal ak moom àndal ak moom nga xool ba xam message bi wàcc. dem ma nga dem ñeneen ñi dañuy ñëw. wool ma wool ma wool ma numéro numéro 17. numéro 17 wool ma numéro 17. numéro numéro 17 numéro 17. Ah, numéro 17. bi. sëñ bi mooy kéemaan Siké Koulaba Siké Koulaba ca de ah nu mu demee. affaire baa ngi neex de. ah. affaire baa ngi neex. eh yow ñëwal li Sadio Ndiaye bis ni ki ne Sadio Ndiaye laa tuddee. Sadio Ndiaye. affaire baa ngi neex de. ah eh, mat naa suba 40 mille. Ah, waaw waaw. femme bi jox na vingt cinq mille quinze mille ticket yi boo ko boolee lépp quarante mille la. waaw cinq cent mille yóbbu digg seen mu ñaata hmm. cinq cent quarante cinq sa waay kii sarax yi génn ko sarax bi ni leen ko ko defal. nee na ak cinq cent mille waaw cinq un million dina fi ñëw brique. waaw ana yàlla. Eh, kay yow. ren sa gi gi bi jaakin ba xale la ak mag bombardier ba woon ak bombardier mi mënuñoo bokk mu bëgg woon adduna bi yëpp que nii âge compté wul pour man. bu ngi dajee borom ku de téewante dina xam ne ni góor ëpp na ko doole. ñu dàq bëri si làmb ji. dóoruma si kenn mu daan dama ko jàpp daan ko si bëri. ñu mu doon bëreel du ma rër rek. bokkuñu. bu bëggee na jàpp ñaari loxoom téye ba pare. te dibiteri bi mu doon lekk moo neex xam naa moo tax mu wax loolu mais moo la gën a xam bu ma nga mel làmb ji tee si kàttan suñu bëri ku mel ni man. bu dawul ñu daje laa la wax def lu du lu neex lu amateur yi bëgg. gis mu jour ba dina ah. xam ne la dëgg la man ku dul ama neex ku Lamine bàyyi ma la xel moom dina tal leneen lu dul booy bu xees wala am na toole wala amu doole bu ñu dalante rek yàlla baax yow man combat bi sama bakken laa si teg wala dina may jixaat yi moom na taxaw dëgër boppam rek mu bañ a daw wala daf mi barki salaate faate damay dem jixaati lu ma am jël